tey jii dañu ñëw pour daje fii pour waxtaan ak benn nit boo xamante ni nii moom lañu naan Moussa Diaw Dieng di wax ni comme ni ko Ibrahima waxee man duma ma delsi di wax ci Ablaye parcours Ablaye national ñoo ko xam ak région de Diourbel mais du sax ñun ñooy toog naan jaar na fii def na lii def na lii Ablaye li mu def ci réew mi ay empreinte am la marqué ba egsi fi mu egsi ligg bii ñuy wax Ablaay bëgg na sport lool jaar na fu ne ci sport mais bi ñu demee ba xool ni sportu Diourbel région de Diourbel dafa dafa néew doole te ñii di ko attaqué tey muy Moussa Diaw Dieng ci ñi yàq sport bi ci lañ bokk ci la ay personnalité ak bonne volonté yoo xam ne gëm nañ sport gëñ nañ région bi ñu dem ab Ablaye Fall pour indi ko pour mu jiite ligue bi. pour football bi changer sport bi changer di wax ni Moussa dem élection ak ñom ñi di wax ni ay candidat lañ campagne nañ an deux ans pour a ligue bi 15 jours la la campagne région de Diourbel xam li Ablaye liggéey ak niveau Ablaye ak fi mëna yob a sport bi ñi bax ñep and ko ñu kon continuer di attaqué ba tey may wax ni loolu du jàll parce que réew mi ñun dafa am loo xam ni moom Ablaye Fall da ko fee liggéey ba egsi fi mu egsi kon ñun tam dañuy taxaw pour défendre que du ñu jël mukk suñu produit bu baax ay saxayaa yi ay gerte yoo xam ni même boo leen ji woon duñ sax ñu ñëw bëgg a yàq kooku duñ ko naw ab Ablaye lii ñu dajale fii tey je pense que yëgu ko parce que du koy xuloo du kuy attaqué du koy waxanteeg ñooñu ndax moom ñooñu bokkuñu terrain bi ñuy boxe ñun ñoo xool que ni ñoo ko capté ji woon jëli ko pour installer ko pour mu lijjanti football bi bi mu ñëwee itam wane na ci ay résultats yu mag. nu mu ko waxee comme PV bi génn am équipe yoo xamante ne dañ leen a sanctionné te ñun moom xam nañ ne euh, sport moom ak sanction ànd parce que boo deful lawar rek am na des taxes yoo xamante ni ci la nit ñi di sukkandiku euh, pour sanctionner. bu PV bobu génnee nak am équipe yu ñu sanctionné Diourbel ak Mbacké té naam c'est pas la première fois au niveau de la région de Diourbel ñuy def élection pour ORCAV le président de l'ORCAV mu xam ki kii xam na dinañ ko gagner mu créé session té session bobu waroon na xamné à l'époque def ñu lëre won ñun wa Bambey bu ñu jappalé ko ci donc man dama jàpp que ne gàtt na xel lool te fàttalikool itam booba nag lañ koy wax que ne arrête doy na nag na yem fii parce que nag Abdoulaye Fall dafa nekkul nit koo xamante ne da ngay ku ku da ngay jóg jóge fale rek lu la neex wax ko ñu lay seetaan déedéet na arrêté parce que loolu moo gën bu arrêté wul amaana lii ñëw du baax. loolu nak mo waral ñukoy lancer on appelle lancer à tout le monde on appelle ay xaritam ak léppam na arrêté de verbalement le président Abdoulaye Fall. dañuy wax que ne Abdoulaye Fall bobu mo agressé il fait la fierté de la région. ñun ñi dëkke Mbàkke bokk yor fay ASC di yëngu ci football buñ sañoon ñom ñu ñew à la retenue et à la responsabilité ndax amna épisode bu fi jaaroon épisode u cave jaar na fi fu mujjé si jàmm ak salam fi nit ñi mënuñu la wolu fal la sa mandat jeexul nga naan da ngay dammi tank ak da ngay dammi laaf man bokkuma lig kenn du ma gis ci matsu lig mais bu di jaar yoon ñëpp di tàccu kenn du wax mais buñ bëggee xëpp ci cere ji suuf ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy wal dugub ji soq-soq bi dem nag fële nag indi cere ji kenn duñu ko yàqal Ablaye Fall li mu doon ñun ndaw ñi mën nañ doon lu ko ëpp mais c'est un modèle nit ku yaru la du xas nit du saaga nit je di ci télé musuma lekk dix mille francs mais man je combats principe li ma ciy dugal mooy dafa am ñoo xam ni tey ñoo yàq ay carrière football kat bal de jour bu ñu amul Jurbel moo tax. ku mësaan a dox ci nawetaan boo mësee boo ñëwee Sinowor Balde mo lay génne je parle sous le contrôle de mes anciens ku fi dëkk Jurbel ku xees daal lay bañ a gis ngay làkk mbii mu dugal la moo sino Sinowor du dem fenn boo moytu sax quatrième division la jëm.